عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وصلى وسلم وبارك على عبده الأمين والمبعوث رسولا في الأميين وهو أشرف المرسلين وما أرسل إلا رحمة للعالمين وقد ختم النبيين وساد الأولين والآخرين محمد وآله الأتقين الأكرمين العالمين العاملين والزاهدين الناصحين وعن الناس العافين والمذهب عنهم الرجس المطهرين كما صلى وسلم وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أبي الأنبياء والمرسلين ورضي الله عن أصحابه المهديين الهادين والأبطال المجاهدين والغلاظ الأشداء على الكفار والمنافقين السابقين الأولين من المهاجرين وأنصار الدين والذين اتبعوهم بإحسان من الرضوانيين من بايعوا تحت الشجرة ومن غيرهم من الذين جاءوا من بعدهم وانتهجوا نهجهم مهبين في الله لهم واستغفروا لهم كما لأنفسهم إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين gannaaw بن sante yàlla mi wax ci téeram bi ne julli day tere ñaawteef ak lu bon lépp loo xam ne sariya rafetluwul ko rek te dégg it ci waxam jooju ne kenn du mën a bàyyi ñaawteef ak lu bon lum ne mukk féeg mi ngi sàggane julli teg ci julli ci yonent bi ki nga xam ne bu masa yëg coona ci julli lay noppaloo ci la xelam di dale ci la xolom di féexe ci lay fàtte jafe-jafe àddina yépp teg ca ñaanal ki ni fàttali ko ay jëfam fii yàlla gën koo dolli ngërëmam gannaaw loolu lépp mbokki taalibe yi mbokki julli maa ngi leen di nuyu ci turu sëñ Muhammadinil Muntaqa saahibil himmatil aliya والخليفة العام للمريدية أيده الله ونصر وحفظه وستر ورحم سلفه وغفر دلين دوكيل تي مير مماغمي تحنو داجي في موي فاتلكو جف جو خامني لكولال موي گم يالا تدغر ak wóolu ko ak wakkeelu ci moom képp ak doyloo ko muy julli gi sëriñ Tuuba sëriñ bu mag bi julli woon ci géej gi tooba ak tay jii di téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom ñett ci tubaab yi ndax mi ngi amoon 1995 ba ren di 2023 muy karaama gu rëy gu yàlla may sëriñ bi waaye di bind bu nu war jànge lu bari bokk na ci jàmm gi tax yàlla bindunu wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun wari si ko sàggane ak lu mën a xew te bokk na ci saggane ko def ko ci fudul waxtoom di bàyyi ba waxtoom jàll di fay ci lu dul ngànt bokk na ci itam ñàkk farlu ba matal sart yi ware jiitu julli gi te ñépp xam ko bokk na ci itam yàkkamti bay bañ def ay farata ci biir julli gi walla defeen wa di baña a mat loolu lépp sëxwu ci julli la te bañ koo fullaal di ko sàggane bañ koo def ni waree te ñi demee noonu la yàlla doon tëkk wax ne fa waylun lil musallin julli yàlla rëyal na mbiram lool te woyofulu ci dara lu néew néew ba tax na nit mën nay julli daray saxu bañ caa am mu sell ni mu selle ci saahir te du tax boroom mucc ngir lan ngir ne da doon njistal yàlla taxut wala seddu seddu ca mu seddu ca laneen seddu laneen def ko ngir yàlla ak laneen seddu ci laneen ak bañ cee séed yàlla dara ñooyam lu ci ne mooy yàllay kese bañ a tax an salaatim saahuuna sahwu fii tekkiwu fi jamooj gi nga xam ne mooy juum wàññi lu ci bokk walla juum dolli lu ci bokkul te mën dal kone bu yàlla teg koo kii julli kii julli kon waxi nopp bi muy wax waa sawara buñ leen di laaj lu leen fa dugal lim na ay sabab yu leen fay dugal waaye ñàkk julli la jiital teg ca ñàkk joxe asaka kon bañ a aja joxe asaka itam dara jëru ko bi muy wax ñàkk a joxe asaka wala ñàkk a dimbale miskin rek bi sak dina am waaye asaka jëm faratal moo gën a yeyey ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين إلى آخره julli ak asaka ñaare yàlla daleen di boole kon lu ni ko ñu liñ julli ñore lu mu koy boole rek loola ñor na ko waaye bokk na ci liñ mën a jànge ci julli sëñ bi ci géej gi amuk soloom akub dayoom ak wàcc waayam fa ba tax mu jaral ko lim ko jaral waaye daa xam fii ko yàlla teg rekk te moom ngërëmul yàlla la doon wut musta dañ di ci soññee ba wax nañu ne bokk na ci li mujje dénkaane ci waxtu yu néew lu jiit muy wuju boroomam wax ne na ngeen farlu ci waxtu juróom ak saraxe ak ñaan moom gis nga ni mu toppee ndigalul yàlla te roy yonent bi bi mu nee julli rek daf ne saraxe kuy digle saraxe kon digle asaka waxi nopp taalibe yépp war xam loolu ñaanit yàlla ne uduuni astajibu lakum ku bëgg a am lu man di doon nañaan yàlla ku bëgg a mucc ci lu man di doon nañaan yàlla yàlla yàlla moom moo moom te ñëpp la fi nekkal ci kaw nag nuy jéem jaar ciw yoonam assiraatul mustaqim wim nu tëralal te mooy sariya bim jaarale ci jaamam bi ko gënal ci jaamam yépp di muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokki jullit mbokki taalibe yi nan gën fonk julli gën koo jox yitte roy ko ci sëñ bu mag bi tey sun sëriñ ñun murit yi di sun roy waaye ko baneen sëriñ nit noo noo war a bokk jëmuwaay ndax ci yoon sëriñ sépp li yonent bi daa digle lañ war di digle lim daa tere lañ war di tere ni ki nga xam ne yonent bi ci boppam it ay ndigalim ak i mi ngi delu ci ndigali yalla ak i ndax fil haqiqa mom yalla rek mo saña digle mo saña tere kudul mom da koy rek wala muy jottalil ku koy jottalil innal amra kullahu lillah mbok yi at mun dug at mu bes mun dugati nañ jéema a dabaatal lañ sàgganoon caat at ko njëkk ci wàllu julli ndax kenn xamul dana génn at mi dugg wala déet kone rafet njortu képp la am te ku dem ku ne liis koy jëkka laaj mooy julli bu jagee lu ne mën naa jag ndax ak yombal da cay am bu jagul amul lanen luy mana jak ndax ak jafel da cey am jambi jeufum yo rafet ci lu manti don ak lu neew neew buñ ko de dak di ca laaj gennam ca daari yom te fonkon julli da ko rafetal man nako jural lolu ay jëfam yu ñaawit ak lum neew neew ci lu don tan ko diko ca laaj man nako jural musiba te sagane won julli da ko baña def wala da ko ñaawal man nako man nako jural kon julle ngogu yalla nu yalla notal setané ak banex ak bakkan ban man ko fonk di selal nim ko beugé tan xamné fonk ko sellal ko mën nanoo musal ci lor yi yépp ndax moom borom bi moo ne inna salaata tanha anil fahshaa'i wal munkar julli day tere ñaaw di terelu bon te yooyu nag ku ci mucc baax rekk moo fay sës yàlla nan ko yàlla defal maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp kilifay diine yéeg kilifay aada yi di ci jiital Abdul Karim Fofana mi nga xam ne moo fi teewal kilifa réew mi te bokk ci kër gi di taalibeem sëñ Moustapha ñu ngi koy jot lool suñu nuyoo ñi itam ak nuyoo sëñ Mountakha yàlla nañ fi teewi ati ati at te at mu dikk yàlla nañu dàqal ma weesu yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def fi xéewal mu law ñépp am jàmm am xéewal ci barke sëñ Touba mi tax ñu teew fii wasalaamaaleykum wa rahmatullah kon na ñëpp tàllal amin amin amin ngi sant bu baax nag teewaayu sëriñ sëriñ sëriñ Aliou Amar sëñ Xaadim Amar mu sëñ Aliou Amar ak sëñ Maodo Habib bokk njabootu sëñ Thierno fi la mbay le 4 octobre bi sëñ Touba ca Maroc waaye sëñ Jili Ñang TFM Ablaye Lam Sen TV Moustapha Kane Touba TV Mouridi ak Lamp Fall ñoom ñëpp tubaarkalla ngeen ni ñu ngi topp événement bi ak ñi koy jël ñëpp en direct muy dem bitim réew ak yore su ak yore su ma nee na point de presse bi léegi nañ ñu may dañ def point de presse léegi nañ ñu may léegi nag sëñ Lamine ah. léegi tubarkalla ñi ngi siyaar ñep wa presse bu kenn dem dañu def point de presse. sëñ mam Thierno moom Cheikh Modou Kara ñewna and ak mbollem wa diwanu Silk jawahir diwan bepp la andal ci ndigalu bayam On ne parle pas de légende. Les faits sont avérés. L'action est pure dans la sainte piété dévotionnelle. Il ne se targa point d'éloges ou de miracles ou de pouvoirs ostentatoires, non.